asalaamaaleykum mbokk jullit di mbokk taalibe yi ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaare te di leen jottali ay cant ak i gërëm yu jóge ci mboolem daayira yi nga xamante ñoo àndandoo woon di taxawal màggalu Serigne Touba gi ginnaaw biñ ci amee ndigalul Serigne Cheikh Sidil Makhtar di ñaan mu yàgg fi lool te wér cant yeeg ngërëm yooyu nag ñu ciy jiital njabootuk Serigne Touba gi ñi nga xamante ne ñoo teewoon bis bi taxawu ko. ñu ngi leen di ñaanal ñu daje ci seen ngërëmul maam la ca des ñuy sant bu baax a baax a baax sunu mbokki këri diine yi ci seen taxawaay ci bis bi ñoom ñëpp ñëw nañ ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax te di leen ñaanal sunu boroom fay leen seeni taxawaay di santaat bu baaxit mboolem taalibi sëñ Tuubaa yëpp ci taxawaay bi taxaw ci bis bi ndax jëf yi mat na yéene ji mat na pësteef bi mat na ba àddiya ji nga xamante ni yéene woon nañ koo jëbbal sëriñ Sidil Maxtaar ci ginnaaw màggal bi suñu borom dimbali nañu ba nanu ko yéene woon nu amee ko noonu kon nag ñu ngi leen di sant bu baax di leen jaajëfal di baral nag ay cant bu baax a baax soxna yi nga xamante ni ñoo nekkoon ci waañ wi yàlla na leen suñu borom dollee taxaw yàlla na leen suñu borom dollee fay ci barke Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul leneen la ca tegu mooy di leen woo ci gàmm bi nga xamante ni moom lañ bëgg wéyale liggéey bi nga xamante ni ni ñu ànde woon màggal noonu lañu am yéene àndandoo gàmmu ndax kenn ku ne xam na ni màggal gi ndigalul sëriñ bee waaye gàmmu gi sëriñ bee ko daan taxawul boppam moo ko daan saytul boppam ba tax na ñu ngi ci woo ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw ñu ñëw ànd kook nun ba ni ko sëriñ bi bëggee nu defe ko noonu kon ñu ngi jaajëfal ñëpp di sant ñëpp jërë ngeen jëf

ñu ngi si magal yonent bi sax ñu ko lay sant nag koo xam ne ji mën koo def nga def nga def ko fa soo defa bopp ko mun wut ñu koy def nga feete ñu koy defee te ànd mën a doon waaye bisu gàmm nga yemale ko guddi nga ko jëkkoon ak ga ca topp loolu dara jël ko ci jullit bisu gàmm nga ko guddi nga ko jëkkoon ak ga ca topp loolu dara jël ko